af AFDAL mooy association des femmes dëggu ak liggéey association des femmes dëggu ak liggéey kon af daal dëggu moo ko njëkkalal liggéey topp ci muy ay jigéen ñu àndandoo ne ci kanamu madame Ba a Diouf suñu coordinatrice moo fi indi AFDAL fii ci cees ci Thiès noonu ak Thiès yëpp sax ndax suñu bànqaas law na ba fu baree bare bare ci biir Thiès yëngu ci liggéey rek luy suqali jigéen ak di ko jëmee kanam af daal dañuy conducteur di daje di cotiser suñu cotisation di ci leblante di ci dimbalante di def suñuy formation def nañu formation saabu def nañu formation micro jardin def nañu formation gestion def nañu formation emballage waaw yooyu yëpp ak yeneen yeneen yeneen formation macha allah développement xanaa yokku rek di ne ci suñu activité ñuy bay di bay ku nekk am ci jaay di ci yëngu di ci suqaliku di leblente suñu biir buñ la lebalee nga fay boo paree ñu lebal sa morom mu fay ñun suñu amul intérêt amul intérêt juróomi junne lañu commencé woon ba ci fukki junne léegi ñu ngi leb ba ñeen fukki junne juróom benn fukki junne ba téeméeri junne ñu ngi koy leble ci Afdal macha allah ku ci nekk yaa ngi ba mooy coordinatrice bi di suñu lépp nag gannaaw yàlla ndax taxawaay boo xam ne kenn mënu koo xam foo koy yemale ndax madame ba lépp loo xam ne dina suqali jigéen mbaa mu koy jëmale kanam mbaa mu koy jàppale di ko yëkkati madam baa ngi ko yóotu di ñu ko indil fii ci Afdaal macha allah ñu ko fay yàlla rek lañ koy bàyyeel. sanaa sant yàlla di jul ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu mbooloo mi yàlla téyel ko boppam mu jëm ca kanam ba yegg fu koy suñu njott di kontaan ci waa af Afdaal yëpp tàmbalee ko ci madam la ministre Anta Sarr Diacko teg ci madame Bam yi nga xam ne gannaaw yàlla lépp moom la. ak membre yu takku nag te dëgër rek te jàppoo rek ndax lii jàppoo ak déggoo rek moo ko mën te loolu mu ngi fi ñu ngi jàppalante ci sutura ñu ngi fonkante ñu ngi jàppalante ñu ngi dimbalante macha allah alhamdulilah rabbil alamin yal na yàlla fal cat. asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp ziyaar ñëpp. di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñuy teg luyoo bi ci loxo suñu présidente Tanda Mbaw Sall ñu ñu koy jottaleel ci madam Ba ak borom kër gi muy tonton Ba ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax a baax Afdal mu ngi yëngu lu dul ci social ak dimbalante ak tëkku ak liggéey waaw ñuy euh, góor góorlu bu baax a baax ay jigéen ñu tëkku ñu jàmbaare ñu am jom ñoo xam ne dañuy teel a xëy di guddee wàcc liggéey rek ñu tax a jóg waaw ñuy def suñuy cotisation comme ni nga ko waxee rek lu tax dal jóg cotisation 500 francs la ñu démarré woon ba tey jii ñu ngi ci ciy le ci di dem ci ay ay millions di leple comme ni mu ko waxee ay 200000 ba ci 150000 Afdal moom ay jigéen ñu brave ñu jàmbaar macha allah ci kaw ci kanam yal nañu yàlla lafal cat jàppale ñu bu baax a baax ci ci ñu bés bii na yàlla aar ñu sàmm ñu jërëjëf merci. bismillaahi rahmaani rahim. ñi sant yalla bu baax di julli sayidina muhammad Ali salaatu wasalaam di ñaanal ñepp jamm di ko sàkku ci ñoom di sant Wa koñ bi di sant ñun jigéen ñek suñu borom kër yi ñi nga xamni tay ñoñu dolel ba ñu ñame ñew di bok ak ñinni di bok ñew ci madam ba di nuy baax di gëreem suñu borom kër yi ndax tay buñ ñu téré won duñu dem mais wax deug yalla suñu borom kër yi nak dañoo may liberté ba nga xam ne ndax madame ba mii dañoo gis ci madam ba fulla ak fayda ak social moo tax sunu borom kër yi fu ñu leen tàggu ñu bàyyi ñu loolu ñu ngi koy sante sunu borom kër yi bu baax di sant nag waa koñ bi yëpp ñun ñëpp ay jigéen la xam ne jigéen amul doole madame Ndiaye madam Ba bi mu dëkkee ci koñ bi ba léegi kenn amatul benn njàqare kenn amatul benn souci heure bu ne mi ngi seet luy suqali gox bi te ñun ñëpp ay sancaan lañ fi rek juddoowuñ fi yaroowuñ fi ñun ñëpp ay dox daja lañu mais badam ba dafa ñëw boole ñu ñun ñëpp ndax ku ne dangaa tëju woon sa kër boo rombee ni dangay sëkk moom salaamaaleykum maaleykum salaam ça va wala ça va bien amaana sax mën nga ne bañ a nuyoo mais madam ba depuis mu dëkk fii ba léegi nit ñi dañuy kaf dañuy fo dañuy ree daf ñuy boole ñun ñëpp ñu la boole def ñu benn groupe di jël alalam di ñu jox di dem di wuti di ñu jox ba tey jii du ñu lebi banque sonaluñ suñu borom kër yi dara suñu kii bi maaxàlla macha allah ay nit yu baree bare bari ñu am jom lool suñu liggéeyee ñu ngi ci formation yi ñu ngi ci avec yi ñu ngi ci calebasse yi ñu ngi ci social bi ñu ngi ci lépp di defar macha allah madame lu mu gis mu xam ni Thiès noonu la baax rek indil nañu ko pour ñu liggéey pour ñu suqali ko ba daal ak jëkkëram ñi ngi am suñu wàllu machine wàllukaay à cause de moom lépp lu ñu bëgg madame ba taxaw na ci lépp loo xamante ni jigéen da koy soxla madame ba da koy dem wuti indi ko ñuy leble ay téeméer di natt ay téeméer di ko leblante di ko leblante ba tey ñu ngi leble ay 1 million 3 million cent mille ba cent mille lépp loo bëgg rek tey jii heure boo ñu fëggee ñu jox la ne mi ngi nii à cause de moom moomu la tey su fekkoon dafa ñëw tëj buntu këram kenn du ko jamee ku ne dangay tëj sa buntu kër mais defu ko nit ku baax la te lekk suñu alal au contraire day dem wuti indi jël poosam dolli mais musuta lekk suñu dërëm suñu ñaar te tey jii su ko neexoon am na ñoo xam ne tey jii ñi ngi ci dëkk bi yëpp day ñëw sa di la dugal ci ay développement nangam naa naa la développement nii na dugg a génn di dund sa kaw te doo ci xam dara mais moom dundul ci kaw kenn ñëpp la yemale lépp moom mii ni ñuy cotiser moom moom noonu lay cotiser di ñu jàppale di ñu dimbali di ñu suqali ba tey jii macha allah bis bii nag yaa na sedd guy ñun ñëpp ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla moog borom këram ndax borom këram moo ko dooleel kat borom këram tey su fekk dafa buntu këram na ko ah. fii nii sancaan rek ay jàmbur doo nga fi ne kenn xamul kenn dox daje la yamal fi ma la yam loo kon dëgg yàlla daf fay yam waaye jëkkëram defu ko daf ko bàyyi ñun ñuy dugg heure bu ñu neex ñu déranger ko heure bu ñu neex dugg heure bu ñu jeex génn kon dëkkëram jëkkëram borom këram monsieur Ba moo ko dooleel leen ñaan yàlla na yàlla may gudd fan gu ànd ak wér lii yàlla nañ ci def ko ay ati ati at ba mu kawee suñu njor ba lépp di ci génn ci bàkk Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp jàmm ñu teewaat ay at yu baree bari ci bàkk Sidina Muhammad. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi tudd bu Dieng dëkk Thiès dëkk quartier bu ñuy wax Thiès noonu ma nekk ci membre ci AFDA ma delluwaat nekk trésorier ci AFDA delluwaat nekk biti commerce ci AFDA maay jaay ceeb bi. AFDA nag njëriñ rek moo ko tax a jóg ak suqali jigéen ñi ak jàppale jigéen ñi loolu moo sos AFDA ndax déggu ak liggéey moom la moo nekk AFDA AFDA defuñu ko ndax commerce defuñu ko ndax politique AFDA dañ koo def pour suqal jigéen ñi madame Ba moo ñu indi AFDA ñu ngi commencé AFDA ci sept cartes tey macha allah ñu ngi ci presse ñu ngi ci cent cartes. ñu ngi ci cent cent cinquante carte ci AFDA am nañ juróom-ñaar téeméer carte ci AFDA ci jigéen ñi ci bos niki tey nii ndax AFDA déggu rek ak liggéey moo ci nekk ak social ak jàppale jigéen ñi te madame moo ñu jàppale moo ñu tettee moom ak borom këram luñ fi yore suba ba ngoon projet bu ñu am formation bu ñu am eh, social bu ñu am yëpp ci doolam ak ñaqam moom la ñu jàppale jàppale na jigéen ñi tette na jigéen ñi laaju leen seen récépissé di ko yóbbu ministère di ko lekkee suñu xaalis moom bañ na ba AFDA membre la ci day cotiser comme na ñuy cotiser ku nekk 500 500 yooyu moom la ñuy def sociale moom lañ def roulement ci biir AFDA ñu delluwaat formation bu am ci xaalis boobu la ñuy dindi dem def formation moom mu mu mottali ñu lu mu ci mën doon. lu mu ci am sant yàlla bu baax nag ndax bu ñu amee AFBA ba tey kenn tàllatul loo xam kenn ñaanatul kenn lebatul fenn am nañ suñu projet am nañ suñu avec am nañ suñuy leket am nañu yëpp am nañ suñu ceeb ñu ngi defar saabu ñu ngi yore suñu machine wol ñu ngi def suñu kii suñu maraîchage di def micro jardinage yëpp madame Ba moo ñu ko indil am na ñoo xam ne ñu ngi def cuub yëpp ci madame Ba la yëpp ci doolam ak ñaqam moo ñu ko dimbale ñu ngi sant yàlla nag di sant ko di sant borom këram ndax borom këram dafa dagg ci këram lu mat ba lii eh, fukki mètre may ñu ñu def ci machine def ci unité saabu beneen côté bi ñu def ci micro jardinage kon ñu ngi sant borom këram di ko ñaanal moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ndax monsieur Ba moo ñu jàppale te jul këram gi heure bu ñu ñëwee këram gi dafa ubbeeku heure bu ñu ñëwee lu ñu soxla ci papier ak yëpp def ñu koy liyal def ñu koy yombalal ba mu yombu kon suñ fi yeggee tey grace ak madame Ba naxul jigéen ñi ma ne naxul jigéen ñi dafa ñëw jàppale jigéen ñi jàppale noon noonu sab ko jàppale route de Dakar de jàppale euh, fii Grand Sanding jàppale Jaxaaw jàppale Caali yëpp ci kii am la ba ci antenne am la fii ba Mbour ah, ci antenne madame Ba la te madame Ba doolam rek ak ñaqam lay doxee ñaanul kenn. demul ci benn ministère demul fenn doolam rek ak soldam moom rek la yaakaar moom lay doxalee AFDA jigéen AFDA tamit ñu am jom lañu ndax jigéen AFDA lu ñu leb dinañ ko fay loo leen jox ñu jaay dinañ ko jaay delloo si soo waxee solidarité ñoom ñëppay indi seen solidarité ñu jàppale dañoo am ba am pharmacie boo xam ne dañ fay déposé suñu xaalis ku am njaqare nga am ordinance amoon noo koy fayee foofu la ñuy dem ñu jëlal la ordinance bi faj la ba nga fekk ma sàmba ko yëg ma demba ko yëg su tabaski ñëwee moom madame Ba day def kattanam ak doolam jox ñu edd tabaski ku nekk xanaa dangay ngay wax kay aw ma lu bari kon ku nekk dina mos su korite ñëwee dina wàccee fi ay tonu ceeb ku nekk dina ci am li nga xam ne mooy sa wërsëg kon ñu ngi koy ñaanal fu mu bëgg a yegg yal na ko yàlla yeggal ñun moom dañuy tàllal loxo rek di gën a ñaan yal na ñaan bi nangu ndax desaluñu dara ñun jigéenu Cees noonu jigéenu eh, quartier yi ma compte yi ma lim fii yëpp sant yàlla bu baax a baax a baax ndax bu ñu amee jom nekk jigéenu talaatay ndeer ñun du ñu tàllal kenn loxo dañuy bugg a demee ak suñu ñàkk ku ñu fekk na nga may ñu bugg nañu soxla nañu kon ñun dañuy du ñu ñaan kenn soo ñëwee nag nga may ñu soxla nañu ndax ñun jigéen ñi amuñu doole am na jigéen yoo xam ne ci taliba la ñuy taxaw tey suñu yàlla mayoon unité boo xam ne lu ñu jàng ci formation yëpp ay emballage ak yëpp ñu am suñu unité bopp. su ñu demee foofu dinañ mun a liggéey lu bon bon da nga wàccaale dara kon doo taxaw ci tali bi loolu rek moo ñu manqué ñu ngi ñaan état bi nag di ko tàllal loxo nañu dimbale côté boobu soxla nañu ay unité soxla nañu ay formation tàllal nañ leen loxo ñun nga jox ñu lu ñuy nappee moo gën nga jox ñu jën loolu rek la ñu soxla merci jërëjëf. macha allah mère Khady wax na lépp rafet na moo yomb léegi couverture bi. waaye fekkee bépp groupement bépp association bu jub ñëw jug bëgg formation soxlawul interlocuteur soxlawul intermédiaire. tout à l'heure maa ngi gis ci que on parle de digitalisation digitalisation c'est pour nous permettre ñun ñëpp lu gën a li ñuy li ma leen di ñaan tey mooy gis naa fi ñiy defar saabu gis naa fi ñiy defar eau de javel gis naa fi céréale locale kenn defu ko ñun jigéen ñi ñoo koy wax j'ai l'habitude de le dire man damay xëy liggéey suba ba ngoon aw ma jotu toog di defar di araw wala di euh, nuñ koy waxee fondé pour mën a lekk su ma wàccee supérette yi laay jaar céréale locale laay jënd dem sama kër toog kan moo ko defar du kenn ku dul yéen. je disais que li fi nekk ci transformation de céréale locale li fi ñu nekk ci transformation de fruits et légumes kenn defu ko ku dul ñun ñii di jigéen ñi te li ñuy wax léegi ma jàngal la ni ngay nappee moo gën ma ñëw di la jox dara di la jox xaalis jàngale li ñuy nappee moo ko gën. te loolu nag ñun si la dox avec notre directrice générale Souba Bakor. ngoon amul nag xaajaloo amul sen. képp ku am récépissé am déclaration d'association nga am cette demande jubal si au niveau du 3FT, dinañ la financer cette formation te dinañ la jox jumtuwaay yi war tax après nous avons continuer sa c'est-à-dire nga mën développer sa activité générale de revenu

waaw xam ngeen stand bi stand bi daf ñuy intéressé parce que c'est une jeune ah c' est une jeune fille boo xamante ne dañ ko gis fii mu ñëw bokk ci femme entrepreneur yi bokk ci femme yi nga xamante ne dañu ñëw pour liggéey te li ñuy liggéey aussi ay produits locaux rek la donc euh, dañ lay encouragé puisque lii la ñu bëgg dañ na soo métier amul jigéen ñëpp dañu war a daan seen doole du bureau rek mooy liggéeyukaay lépp looy def rek pour mën ci tedd am ci njëriñ mu amal la njëriñ nga yóbbu sa kër rek jàppale sa bopp rek du baax la té li rek la am bay dundé lañu am ba paré transformer produit ndax produit buñu bu transformer wul tamit day yàqu kon li lañuy wut buñu né jigen ñi aussi nañu dem vers l' pour li la dang koy jang mën ko def ko pour produit mëna genn a génn ah dañ lay encourager bu baax ah allez allez bu baax merci. Thank you. waaw asalaamaaleykum waa jaar nañ stand yëpp nag waa bii nag stand AFDAL la association des femmes dugg ak liggéey waaw boo xam ne dañuy am mbégte toujours bi ñu ñëwee fii ci département de Thiès

yoo xam ne amul benn engrais yoo xamante ne dafa baax surtout aussi pour femmes yi nga xam ne dañu yore njaboot gu ndaw moo indi toujours ñu leen di defal euh, euh, ñuy def agriculture sur table sur table yi ci biir kër kër lu mu xat-xat-xat rek mën nañ ko faa teg waaw boko fa tege aussi waaw njabot gi donc euh, santé bi daf ci am solo puisque njabot gi dafa am wara am wérgu yaram donc muy fer bi muy produit yeb da ngeen koy am en dehors de ça aussi gis na yëpp ngi fi papaay baa ngi fi bio salade baa ngi fi chou-fleur waaw donc euh, pratiquement waaw dal dañuy bay dundé waaw effectivement te lii yëpp yéen jigéen ñi yéen a koy def puisque déplacé wu naa dem naa ba fi ngeen koy defee du tey en dehors de ça gis produits bio yi ñuy def kon dañ leen di encourage waaw. waaw bi bi tamit waaw fruits et légumes yi coco au lait au gingembre euh, jus à base de ndiir Lir. ah ok lir. donc tous les produits locaux waaw waaw ak coco yi gingembre ça tout ça effectivement moringa donc effectivement coco au lait au gingembre ak en même temps waaw ceebu Afdal bi aussi mi ngi fi de la vallée bi nga xamante ne aussi comme li ñuy wax chaîne de valeur bi moom moo koy permettre coco au toujours ci Afdal bi aussi am na section teinture donc jigéen ñi defar ci ay yére ay nappe de table ay drap ay kimono sortie de douche yëpp aussi jigéen ñi def ko kon loolu yëpp femme Afdal yi ñoo ko def waaw fii aussi femme Afdal yi am na ñoo xam ne tamit dañuy def commerce dañuy voyager dañuy def teinture donc lii yëpp aussi ci groupe femme afdal yi la. bi nii pour ñu jaay ko donc fii aussi Aftal mi ngi toujours ci savon bi donc dañuy def savon mberbeef dégg def savon huile de palme donc euh, def savon aussi huile de palme bi waaw donc dinañ def aussi eau de javel ak eau de javel bi yooyu yëpp ak ay emballage yëpp aussi Aftal daf koy def là aussi ce sont des vases yoo xam ne dañ ci def ay fleurs calebasse la ñuy jël defar ko defar aussi des de fleurs en papier lii yëpp am daal daf koy def donc on le remercie merci di wax asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakatu di nuyoo nuyoo du gën sell si nuyoo yi di nuyu suñu mbokk yi fi nekk yëpp ndax tey suñu mbokk jullit yaa ngi fi suñu mbokk diine yëpp ñu ngi fi macha évêque yaa ngi fi sëriñ yaa ngi fi maa ngi nuyu ñëpp tous les religieux nuyu naa leen di nuyu partenaires yi nag ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waaye mu am benn partenaire spécial bu fi nekk yi ñu koy nuyu muy monsieur Bakhoum di nuyu nag femme yëpp structure yi fi nekk yëpp bàyyiwuma kenn xanaa dafa fekk ni damay njëkk si af ndax ñun bu ñuy séddale dañuy génne su ma nee af daal ba pare ma wax fas muy kuréel bi ma bokk su ma si paree ma wax euh, wil daaf ñu ngi fi euh, Jules Soir mi ngi fi ku lim daal doo juum da dul pare club Soxal Timis bàyyiwuma kenn structure yi nekk ci plateforme des femmes leaders yépp ñu ngi fi ku gis bés bi rek xam ne kenn wuute ko di jël nuyoo bépp nag di ko teg si loxo coordinatrice plateforme bi muy madame Baaxu Dieynaba Diarra di rafetlu bu baax nag ouverture d'esprit bi mu am jël structure yëpp boole ko dañ koy wax ni ko Thiès neex na neexul neex na nag si kaw boo ñëwee rek indi consultation indi concertation indi une collaboration franche ni ñëw leen ñu ànd lépp rafet waaye nag dañuy wax Thiès di wax fierté thiessoise bi ku ñu da ngay wat mais moom loolu dal ko jigéen ñëpp la boole sans discrimination mu wooñu nag ci plateforme bi plateforme bi nag li ko waral mooy dañu doon préparer 8 mars en 1919 en 2019 bi ñu ko préparer ba dara desul lu def euh, manifestation bi Covid 19 ñëw. ñu daal di koy bàyyi ñu ni kon nañ leen jël plateforme bi di si def information ndax ku nekk léegi xam nga li xew il suffit d'un seul clic pour nga wër àddina wërngal këpp ñuy teg information boobu si plateforme bi mais bi ñu duggee si biir Covid bi nag manifestation amatul ñu jël activité yëpp def ko si biir plateforme def ko filière par filière bàyyiwuñu environnement. bàyyiwuñu foncier bàyyiwuñu éducation bàyyiwuñu violence basée sur le genre bàyyiwuñu dara panel bi vous nous xeyé à partir de 9h rek day melni émission à la radio ñu wo ay spécialistes ñu avons wax ci thème bi ñu jël. bu ñu waxee système bi ñu jël ñu nekk si ba 13 heures daal di jàll si débat kon li suñu grande sœur doon wax euh, madame la maire Mame Diakhou Bousso dafay daal di ñëw waxuñu daraay folklore su ko bëggoon rek suñu ñuy jëriñ la ñu ne à partir de 16 heures ñu daan def marché loolu moo waraloon plateforme des femmes leaders ba tey nag ñoo taxawalaat ko encore def ko beneen. structure boo xamante ni bi dañ ko def organisation teg ko sur le plan juridique daal di bonjour les formations xeeb ñu dal kon suñu partenaire yi ñu woo si formation ñu ngi leen di gërëm di wér a euh, di sant di ñaan yàlla formation yi yokku heure yii dem ña ko sa siège parce ba ne si sa codification am ñu nekk sa informatique am ñu nekk sa yeneen ak yeneen yu bari yoo xamante ni bi xëy na tey remise de diplôme bi xëy na mu xaj fi xëy na fi xaj kon daal nañu jàpp ni plateforme bi daraay caaxaan raxu ko grandeur exceptionnelle la am ñu fiy def loo xamante ni bii nag bu wasaaroo suñu njariñ rek lay nekk ak njariñu njaboot yi ndax nag bu ñu fàtte ni ñu njaboot gee ñu tax a jóg te bu ñu nee njaboot yi bu ñu génne borom kër gi bu ñu génne xale bu góor bi bu ñu génne xale bu jigéen bi parce que dañu ni genre la ñu wax te boo waxee genre da ngay jël sexe yëpp considéré leen ni doomu taxaw na discrimination du am dara du am kon daal ñu jàpp ñoom plateforme si gàttal école la tey nag ñu ñëwal am ak partenaire yoo xamante ni bii nag muy am daal dañu rafet tool ñoom réalisation yi def se réaliser na de ñëpp réaliser nañu waaye lu bees day rafet te beesuñu mais parce que bu ma dañ ko saluer yal na wàllu structure yëpp li suñu sigle di wax nag si sa optimiste si chaque trou du canal yi percé et touché par un doigt nous transporterons ensemble l'eau de la vie kon na ñëpp jàpp yàlla may ñu nag macha allah tey ak Allah, di wax nag madame.

les présidents d'organisations de la femme euh, de famille féminine, exposant hier, ñëpp une bonne journée du 8 mars Je madame Dima Abissane, chef de la division organisation féminine direction des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin du ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants

les organisations de femmes une plateforme qui, initiative bu ñu jël au moment où on vient de célébrer les assises de la femme entrepreneur à Dakar le 7 mars passé comme ni ngeen ko xamé ministère bi bu won Sénégal euh, au niveau de Dakar pour nous soumettre président conclusion assise yoo xam dañ doon xalaat nan la ñuy jëmale entrepreneuriat féminin ci kanam kon bu ñu génné boobu journée ñu ñëw fi gis ay femmes yi exposé ñu gis ay femmes entrepreneur euh, dañ ci sawar parce que day wane ni da ngeen di articuler seen action yi ci politique bi état bi définir te ministère bi nekk di ko defal donc moo taxoon nag maa ngi jaajëfal ñëpp ñu fi nekk

billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbooloo mi fi teew mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant damay door ci nuyoo bi nag di ko jox madam Sané madame Sané mi représenté madame la ministre docteur Fatou Gueye madame Sané maa ngi lay nuyu madame la ministre tey mi ngi dem représenter ji ñun toutes les femmes du Sénégal ci CSW bi aux États-Unis kon tey ñi ngi leen di gërëm ci sa teewaay bii nga ñëw représenter ko fii ci femmes de développement yi nga xam ne ñoom ñooy évoluer fii ci département de Thiès maa ngi nuyu aussi madame Niang ñu fi jóge léegi Penda Nous représenter trois fpt parce que pour avoir l'autonomisation des femmes il faut qu'on ait aussi trois fpt son excellence le président de la république Macky Sall la pour nous, nous moyens filières yi nga il faut que nous transformer les produits locaux pour ñu des consommations def consommation locale bi parce que dañuy wax bay dundé te kuy wax bay dunde quand kon li nga xamante ne pas mooy ci suuf si moom la ñuy transformer te ñoom ñu di ko def mais en dehors de ça il yemuñu ci formation pour transformation yi mais en même temps ñu ngi leen di jàngal emballage ñu ngi leen di jàngal toutes les techniques adéquates ak formation éducation financière pour bien mën aussi naka ngeen di mën a yore seen i ay entreprise puisque tu formation yooyu la ñuy pour mëna a le vers une autonomisation ak vers un entrepreneuriat féminin ma ngi nuyu madame Bakou chef de développement communautaire du département de Thiès mi nga xam ne tey moom ak toutes les femmes de développement jigéen ñi fi nekk ñëpp tey bokk ay association ak ay réseau di yëngatu moom mi nga xam ne moo représenté le ministère euh, euh, du développement communautaire euh, de l'équité territoriale yëpp mu représenté leen fii tey kon li mu def tay dañ koy rafetlu dañ koy encourager dañ ko ci féliciter puisque dajalé toutes les femmes du département ci benn plateforme mom la ñëpp di def defe naa bu aussi ni mu def département yëpp buñu défé comme mom jigen ñu ñi ñu am problème pour mën di àndandoo di lonkaloo di def ay échange de produits pour que ñëpp mën ci gis seen bopp comme Sénégal moo boobu la ñuy utiliser toujours gis suñu bopp te bu ngeen lëkkaloo rek di liggéey échange boobu di am defe naa produits locaux yëpp dinañ ko mën a def te ku nekk aussi di nga ci mën a am njëriñ ëllëg bu lay njëriñ maa ngi nuyu monsieur Lamine Diouf di président Sénégal Service di nuyu tous les chefs euh, de service euh, chefs coutumiers et religieux yi fi teew di nuyu tous les chefs de service yi fi teew. De nuyu tous les invités qui sont ici présents euh, de remercier aussi toutes les organisations féminines yi fi teew dama leen di bañ a par ben di bañ di juum maa di féliciter encore une fois de plus ci seen courage ci seen dynamisme ci seen engagement puisque dañuy ne képp koo xamante ne yaa ngi jóg boo dul xaddi rek boo dul xaddi rek lépp looy wut bu ëllëgee di nga ci jot

mënumaa wax waxuma monsieur Mamadou Ba mi nga Aminata madame Ba ndax suis japp ci flyers yi ñu def monsieur Ba moko liggéey lo xamné organisation la monsieur Ba moko liggéey dañuy toujours derrière un grand homme man duma derrière mais à côté d'un grand homme il y a toujours une grande dame kon fi couple bi représentons ñoom

président Kagame masculinité positive bobu mom tay mom la Mamadou Ba ak puisque dañ genre du jigen kessé genre la ak pour ko am pour thème bi nga national bi la xam nga toujours ñu ci comprendre bu ñu équité égalité et genre

jàng am na fa ak liggéey ci agriculture puisque jigéen ñi toujours dañ koy wax dañ koy jooy bu ñu ñëwee tey dañuy ne tool yi ak suuf yi jigéen ñi amuñu ko góor ñi rek ñoo ko occupé alors que tey muy góor di jigéen ñun ñëpp ñoo war a yem ci suuf si pour mën a bay pour mën a liggéey pour que économie Sénégal aussi gën a mën a dem konte te foofu parenthèse la bu ma defoon di gërëm xam ne genre bi loolu ci lañu jëm euh, kon ci ñi ma àndal bëgguma lim bëgguma lim torop mais am nañ ci benn gan goo xam ne tamit lii muy madame Garmi Mané mom aussi euh, du chef de développement communautaire bu département de Dagana mu est en même temps coordonnatrice régionale bu association des femmes dëggu ak de bu région de Saint-Louis moom tamit mu ñëw fi te lii ñu fi def tey moom la nek di def dajale jigéen ñi nek ci département de Dagana yëpp nek comme ni madame Bahoum di def ñu di ko def kon yu mel nii la ñuy wut moom la président de la république wut bëgg tamit te ñu bëgg di ko kon ñu ngi fi ak coordonnatrice nationale bu AFDAL ñu ngi fii ak les trésorières ak toutes les femmes yoo xamante ne tey ñoo bokk ci commune Wakam bi yore kuréelu Wakam bi te di ko doxal euh, kon tey damay ñëwaat tuuti ci thème bi puisque buñ ne journée de la femme dañu bëgg jigéen ñi xam aussi journée de la femme lan moo ko waral nous avons célébré le célébrer 15 15 de la femme Nous, parce que tout simplement nous avons ñu les droits de la femme et de la fille donc deux journées uniquement de la femme mais journée la boo nous dañu réclamer suñu droits Donc, journée de la femme c'est vrai bëgg nañ ci nous bëgg nañ ci xumbute puisque le Sénégal est tëddoo donné. fépp fu ñuy bëgg nañu waxtaan bëgg nañu animer loolu yëpp daf ciy bokk mais loolu lu ci ëpp bu ngeen seetloo léegi teggeeku na pratiquement lan moo ñu bëggal lan moo ñu jëmale kanam ñun jigéen lan mooy tax jigéen ni góor mënee indi ci kër pour njaboot gi am ci njëriñ jigéen ji tamit daf ko war a def pour indi ko ci kër gi foofu toujours laay wax aussi ne genre bi dafay am ndax dañuy ne góor day takk tubéy mais jigéen aussi dafay takk sër kon léegi tollootuñu ci ère boo xamante ne jigéen dafay war toog ci kër bank ay loxo góor kese di wuti di indi kon góor ak jigéen ñun ñëpp ñoo war a jóg di wuti di indi pour njaboot gi kon loolu moo tax tey jii li ma fi gis yëpp stand yi ñu xool yëpp jigéen ñi transformé céréales légumes yi defar savon yi def eau def ay jinjeer yëpp ay produits locaux yoo xamante ne ay mbay lu ñu fi def la suuf si la ñu transformé ko moom lañ fi teg tey kon loolu lu def lu dul encouragé leen 3FPT madame Niang wax na ko sànq wax ji mu fi wax mooy lan mooy bu ñu leen formé ba pare dañ leen di accompagner kenn du leen bàyyi dinañ leen orienté vers DER wala ñu orienté leen vers ministère de la femme pour ñu mën leen accompagner encadrer leen trouver leen ay financement pour ngeen dem bu ngeen xoolee ren thème bi ñu jëlaat mooy entrepreneuriat féminin et autonomisation de la femme kon nag bu ñuy wax entrepreneuriat féminin da ngay door ci lu ndaw ngay yéeg nank-nank kon loolu ngeen commencé def seen i groupement def ay formation ñu encadrer leen mais nag da ngeen di gën a am bëgg-bëgg yu gën a jëm kanam maanaam teg ay entreprise ëllëg te pour ngeen mën ko teg nag nii ngeen di commencé ak encadrement bi ñu orienté leen ngeen japp ci bañ a parce que bu ngeen xàddiwul rek bu ëllëgee ay résultats da ngeen ko am kon mën naa ko tënk rek ci foofu yamale ko fi xam ne lii mooy li ma leen di wax festivité yi dañ koy wàññi ñu gën a liggéey gën a takk suñuy euh, sër pour que lépp loo xamante ne lu ñuy liggéey rek daf lu ñu gën a jariñ ñu bañ nag aussi di jaxase bu ñu liggéeyee li ñu war a yóbbu ca kër ga ak li nga xam ne moom moo war a indi njëriñ ñu continuer ko pour entreprise bi bën a bëri jigéen ñi ñu ngi teg ay calebasses ñu ngi ciy nat ñu ngi ciy leble ñi ngi ci faj seen soxla kon sutura bu beuri legi jigen ñi am nañ ko grâce à ces calebasses yi ñu tek mais nak lima ma leen di wax toujours moy calebasses yi aussi bu leen koy jël nat ko ba tabaski jot rek ngeen wat ko ko ci tabaski wat tok di reprendre à zéro kon lolu aussi du leen yóbbu fenn da ngeen koy wat ngeen def épargne que épargne lañu wax bu ngeen dul épargne du ngeen am té bu ngeen yagge di épargne di ngeen dem ba am banque bu ndaw bo xamantene ne koy momal seen bop bu boba li ngeen di lebi fenen pour diko liggey lu néew lay nek dina len permettre aussi bor yi bañ leen top ngeen meuna liggey pour sen bop kon ma ngi gërëm ñep ma ngi sant ñep buma ma wala ma fàtte kenn tamit ma ngi jéggalu bu baax ma ngi len di gërëm ma ngi len di sant merci. merci beaucoup kon tay jigéen ñoo waye mënu ma ñak jël cadeau parce que ñun dañoo ànd ak délégation boo xam ne daa jógee commune Chérif Lo depuis ci suba ñoo ngi fi bi ma nuyoo madame la ministre def naa message bu mu jàll joxe jàll na lool comme damay def panel bi dama ko woon woo madame Awa jiite rek mu ñëw wax ci tuuru jigéen bi jógee commune Chérif Lo parce que femme rurale tamit daa am baat ci réew mi te femme rurale daa am njëriñ ci réew mi parce que suñu nee rural tamit ak sànqal ak leneen def ci kaw gën a joxe kon awa après nga jël kàddu gi xam naa su wax pare après développement commune de Serif Lo ndax ña nga dalee taxaw ñee ñëpp commune de Serif Lo lañ jugee les actions développement commune de Serif Lo ña nga nele di sant nag madame Bakhoum bu baax ndax lii yombul vraiment kontaan nañu ci journée bi neex na torop waaye tamit di remercier ku si mel ni monsieur Zorom vraiment mënuñu koo fay monsieur Zorom Ndioléen mënuñu leen ma ko bu baax a baax ndax action développement bi mu dikkee commune de Serif Lo daf ñu defal ay formation formation yi ñu defal nag yu bari la defal nañu formation yoo xamante ni yu ci mel ni yi yi nga xamante ni moom la ñuy téye suñu parten suñu entreprise tey jii buñ ko yoroon mën nañ koo téye mu jàngal ñu ba nga xamante ni ni ñuy téye suñu xaalis man nañ koo def te jigéen ku ko jàngal ni muy téye xaalisam rek kooku dimbali nga ko ndax gaspillage dañu xamoon yàq waaye depuis mu ñëwee action développement ñun jigéen commune de Cherif action développement xamatuñu loolu ñi ngi organiser wu di liggéey ci formation yi di defar lu mel ni savon liquide waaye di defar suñu ay eau du javel di defar xanaa saabu mbër boof di defar suñu ay sirop di defar di defar suñu sirop di defal lépp lo xamanteni jigen mi ngi dund mi ngi amé amee njariñam tey jii nii boo dee wax développement ba dikk comité Serigne Sylo bo gisee les femmes action développement da ngay xamni fofu la développement fekk bax ndax bo jigen Tivaouane ba ni ngay démé ties les comités Serigne Sylo rek ngay gis ci kaw tali bi. waaw ànd rafet bu fi nit taat rek ñom ñoko défar waye tamit ku yor peñe bu rafet ñun la. ku salat ci set ñun la. tamit ku toog ci ban aar boo demee ci commune de Serif ñun la te lépp li ko waral mooy accès développement bu zéro njóoleel kon ñun amuñu fayam ñu bëgg nag monsieur le ministre tey jii nii désormais mooy les femmes accès au développement de Serif Lo bëggatuñu kenn kuy def daray jigéen te ñun duñ ci yëg bopp te duñ ci liggéey dañoo bëgg lu jigéen di defati ngeen boole ñu ci ñu di ci yëg suñu bop kon jigen ñepp ndax ay jambar lañu ay kat lañu ko tay ji bo xeyen dem euh, commune de Serif Lo kër go dugg bo fa duggé ka nek ci wañu di togg nga fay fekk kon action développement comité de Serif Lo la fekk baax na nak monsieur Zorom Ndiolène di ci def lépp loo xamante ni moom la man ci jigéen ñi nekk foofu kon ngeen jàpp leen ci mbiru financement ak lépp loo ni moom la demee merci beaucoup merci beaucoup tey ñu ànd ak plateforme femme leader de Thiès bi nga xam ne ñoom dañoo jël coordination bi tekk sama loxo euh, ñu ñëw fii di célébrer euh, journée internationale de la femme fii si biir Thiès. est-ce que mën ngaa ñëwaat ci solo si bés bi la ñu gis ne am na ay femmes transformatrices amit jigéen yu bëri yoo xam ne jot jóge nañ ci gox goxaan yi est-ce que mën ngaa ñëwaat ci loolu. waaw tey kontaan kon dañuy kontaan dañuy fier di am mbégte. di taxaw fii di wax ci kàddu jigéen ñi ci kàddu plateforme femme leader bu ne femme leader muy femme régionale nga xam te jóge nañ bi nga gis fi waa Tiwaawoon waaw gis nañ ci sax ñu jóge ci ente ndax woon am nañu suñu mbokk ñu jóge Kébémer ak ñu jóge Ndar muy euh, li nga xamante ni ci lan ñuy yëngu li nga xamante ni moom la am mu nga xam day jóge ci suuf si maanaam maanaam day fekk li nga xam te ñoo koy defaraat daaw li nga xamante ni

ànd ak thème international bi digital inclusif. digital inclusif digital inclusif mooy euh, bépp xarale bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, jumtu jumtu jumtukaay boo xamante ñu koy jël di ko def di ko liggéey doonatul rek xëy na jëf ak ay wax mais ñu jaarale ko ci euh, numérique bi nga xamante dafa xew ndax gis nga ci dugg nañ ci stand xamante ni moom dafa wane ci ab télé dafa wane lépp li nga xamante ni ñu ngi koy liggéey. mu jëm ci suuf si mu jëm ci waxtaan yu ñuy def mu jëm ci leneen ak leneen ñu ne inclusif bàyyiwuñu dara bàyyiwuñu benn fànn la te ñun inclusion dafa fekk ni ñun lu ñu mooñaale la suñu sookul la ci suñu biir plateforme bañ naka ba fu ñu waxee benn euh, ngeen si ñu ko si ñu ko ñemee waxee si suñu biir benn valide jël nañu handicapé ak ndaxte buñ nekk coordination bi présidente donc dañu ànd ak ñoom wan leen liggéey te nag xarala yooyu ñun ñu ñu ànd ak jamono di dox ñu war nekk ci liggéey. liggéey. wax nga ko yooyu tey jii ñuy jox ko ànd ak jamono war a ànd ak war a ànd ak euh, te jumtukaay yooyu muy xarale euh, danoo war a xam ñu koy utiliser war nañu xam ñun koy doxalee ndax dara bañ la cay fekk war ngaa xam lan lan koy nu la ca baax war ngaa xam la bon tam la ca mën a fekk ba nga mën donc xarala yooyu tey ci maanaam sax muy outil bi nga xamante koy liggéeyee rek jumtukaay liggéey ba rek war nañ ko mën a manier comme dañ ni jigéen euh, jamono dañ autonomisation te xarala yu bees yooyu itam di yokku dinu dimbale ci ay lu loxo mënoon a def tey boo jaarale sa xarala yi gën a gaaw yoon même bu dee lu ñuy jël muy même tey ja sax danoo wax sax euh, moyen de transport nga war a jóge fii dem ba Ndakaaru te boo jëlee sa téléphone bi mbaa nga jaarale si benn groupe WhatsApp sa aajo faj te ñun suñu plateforme ban kay taxaw di ko créé groupe WhatsApp la doore woon suñu sox yëpp mu ngi ci réseaux sociaux yi donc bu ñu nekkee digital rek dañuy sawar dañuy sawar dañuy te nag fu mu toll nag ñoo ngi saytu ñoo ngi wuti di waat xam-xam ñoo ngi yettal ci suñu biir naka la nu mun a nekk si jumtukaay yooyu te duñu lool. gis na ne tey ci bés bi am na ay jigéen ñu sargal euh, mel ni dañ ko

léegi nan jàngal ay métier boo ngeen fi jugee ngeen mën a demal seen bopp boo ngeen fi jugee ngeen mën sax dellu si seen euh, structure yi ngeen jugee ngeen jàppalaat seen borom kenn ku si nekk mënal sa bopp loolu lañ am fi euh, ni boobu sax ñu ni neen ñun suñu biir femme transformatrice yi nga xamante ni euh, experte lañ ci am nañ ci ay vraiment am nañ expérience ci jumtukaay yooyu ñoom ñoo ñëw jàngal seeni morom ba tey jii kenn ku si nekk boo toogee sa roxu mën a demal sa bopp maanaam yaa xam da koy defal jumtu utiliser ko wala sax dañ koy def social ndax tey jii euh, vraiment kontaan nañu lool am nañ satisfaction ci taux de participation fànn defaat nañ fi am beneen formation en informatique bi nga xamante ni waa ADIE ñoo ñu si taxawu jàppale ñu si ubbi ñu seen i euh, locaux ànd ak Pôle ñu seen i seen i seen i kër jàngal jox ñu seen i machine jàngal ba pare jox leen diplôme. tey jii ñu ni DER loolu lan la lan lay def ci seen waaw ñoom ñooy suñu àndandoo ñoo ñuy dooleel ñuy répondre aussi si politique état jàppale jigéen ñi taxawu ndaw yi ah wutal leen xëy wutal leen liggéey. donc euh, ci loolu ñuy rafetlu 3FPT yi xam ne ñoo doon marraine bi tey euh, madame Safietou Diallo empêché yónni la coordonnatrice des régions de Dakar et de Thiès euh, Penda Ba ña mu représenté ko fii di leen di gërëm di leen sant seen teewaay dellu aussi di gërëm madame la ministre Anta Sarr Diakho présidente nationale am safoo ñu fàlla ñu xam ne njabootam naka Thiès di yëngu bu baax nekk maamu si biir plateforme moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm di sant suñu structure yi nekk fii ñoom nekk membre si plateforme bi xam ni bu dara du dara ñun ñu ni neen la ñoom tamit vraiment kenn ku si nekk yëkkati def boo xoolee stand yi dërëmu kenn dem ci kenn ku si ne si li ngay yëngu yow yaa génne sa sa sa liggéey daal di fesal ñu wan a jigéenu Thiès bu nu mu ne département bi opportunité yu nu am ak leneen ak leneen yi nga xamante ni euh, vraiment suñu si jàppale ñu gën a dem donc euh, posé posé bi foire bi loolu moo doon objectif ñu xam ne ñoo ngi ci waar wi ba pare nag di ko wane di tàllal loxo di xaar doole ko di ci renforcer. incha allah encensé madame Thiam. waaw tey euh, ñoom dañu ñëw di marqué euh, seen journée internationale pour célébrer la femme en même temps mais pour revendiquer les droits des femmes. puisque jigéen ñi dañu tàmmoon jour bi ñu koy def jouru folklore alors que du jouru folklore jour la boo xam ne dafa war a wone jigéen dafa war a wone lan mooy bëgg-bëggam lan mooy droit wam ci société bi lan moo fi war a nekk taxawaayam pour que ëllëg moom tamit ni réew di doxe mu dugal ci loxoom participer ci économie sociale politique bu pays

pour mën a jàppale jigéen ñi pour jigéen ñi mën a dem kanam masculinité positive bi nga xamante ne président Macky Sall tamit defoon na ko fi ñu def ko fii ci réew mi dafa war a wane ne fépp fu jigéen taxaw war na am ay góor tamit yu fa nekk góoral leen pour yokk seen dëgërlaay seeni ay droit lépp lu ñuy revendiquer pour mën a bokk nekk de bonne citoyenne ba lépp loo xamante ne dañ koo war a jot ñu mën leen koo jox kon tey jigéen ñi bi ma ñëwee ba léegi

Euh, tous les fruits de la terre les plus de ci agriculture jigéen ñi koy transformer tey mais que fi gis président de la république puisque le ministre de la femme a des assises assises yi ñu defoon pour nañ ci yoo xamante ay doléances la yu femmes yi puisque buñu nous former ay jigen war am ay suivi war am financement adéquat et consistant yo xamantene war nañ am puisque ci lu ndaw lañuy ñuy commencer pour mën a tendre vers l'entrepreneuriat fofu tamit war nañu am aussi une bonne éducation financière war nañu pouvoir di épargner pour que aussi li ñuy def mën leen jëreul mën aussi am une durabilité donc euh, tay dal loolu la fi gis loolu la def association des femmes dëggu ak liggéey nag bi nga xam ne man may présidente bi madame Ba moom mooy coordinatrice bu région de Dakar ñoom tamit ñu taxaw fii bu Thiès plutôt ñom ñu taxaw fi tamit am fi mbootaay bu reuy nekk ci commune Thiès Nord Thiès Ouest nekk plus de 1000 femmes yo xamanteni ñi ngi yëngatu di liggéey ci produit yépp saponification javélisation transformation fruits et légumes transformation produits halieutiques ñi ngi fi tek ay moulins ñi ngi def aussi transformation céréales ñi ngi def produits bio yi donc ñi ngi ci financement yi tamit di encadrer femmes trois fois de suite euh, madame Ba Aminata Diouf par le biais de son mari monsieur Mamadouba, Ba mi nga xamante ne encadré en aussi di dimbale di sans masculinité positive kon fu góor ne les Mamadou aussi tant que la taxaw di partenaires techniques et financiers yu di Aujourd'hui, bio Fall 3FPT tamit ñëw na accompagner leen defal na leen aussi ay emballage ak yooyu yëpp ñu def ko te 3FPT tamit dina leen accompagner waat pour defal leen d'autres formations kon financement yi ëpp na plus de 30 millions yoo xamante ne revolving lañ koy def ñu ngi fi teg seen calebasse muy produire ñuy natt di liggéey di jaay aussi pour di mën a gën a jëmale kanam di épargner pour mën a euh, gën a consolider seeni ay euh, action ak seen effort pour que euh, AFDAL mën a gën a jëm kanam gën a law euh, perspective yi nag mooy tey gis ngeen fi aussi le riz AFDAL bi nga xamante ne coordination régionale bu bu bu département de Dagana ñoom aussi rizerie AFDAL ba ma nga fa dañuy produire ceeb bi di ko transformer ah euh, riz étuvé bi di ko def yooyu yëpp ay échange la ñuy def entre ñoom faamu AFDALu région de Dakar yi région de Thiès Matam dañuy def ay échange de produits pour tout simplement nous gagner des produits divers donc chaîne de valeur de depuis euh, la production jusqu'à la transformation et la commercialisation comme ce lañ fi encourager pour que toujours nous gagnons de l'avant merci.